question mais ça ne surprend personne parce que bokkuñu pour gis nga bi ñu créé Yewwi mhm. c'était c'était un concours de circonstances bokkuñu jógu jikko bokkuñu histoire passé dara c'est-à-dire bokkuñu histoire mhm. objectif mais c'était normal ça c'était prévisible depuis les législatives annoncé na ko. c'était prévisible parce que xamoon na ne Macky Sall du leen ci lañ nekk moo ci dugal loxoom. mais c'est bonne guerre. moo ci dugal loxoom mais aussi c'est à condamner aussi. non non non non je ne condamne pas xam mais c'est de bonne guerre. moo ils sont des adversaires politiques ñoo bokk li ñuy maintenant toutes les gymnastiques toutes les subterfuges possibles yi ma mën a def pour que mu mën a wàññi sama adversaire je le fais hmm? mais tout le monde savait ak lu mu mën ci doon mais non pas pas c'est dont je parle un peu avec gentleman benn genre gentleman pas arriver à de l'animosité wala tout ça mais tout le monde savait que Ousmane Sonko ak Khalifa Sall mënuñu bokk gàll bokkuñu histoire bokkuñu préoccupation bokkuñu objectif c'est différent même les cibles ne sont pas les mêmes hmm. même les électeurs ne sont pas les mêmes les électeurs de Sonko sont différents des électeurs de de, mais on a vu ce qui s'est passé avec le dépôt des listes au, au législatif ku mu yeewul ku mu yeewul du yee kenn